internet yu DKR 221 ci a fës ci xibaar yi ca diwaanu Sigicoor la ñu daal di jëm ginnaaw ba nga xamante ne nag njiitu bokk moomeel ba di Ousmane moo def lu ni mel ñu daal ne préfet bu Sigicoor li muy sàkku ci njiitu bokk moomeel ba moo di mu daal deltu ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci le quotidien mi ñu baaxee boobule xibaar ñu ngay xam ne nag daal di ne moom daal di nay saisir ñi nga xamante ne ñoom ñoo di autorité préfectorale ba ba ginnaaw ba mu saisiree nag ci cour suprême bi ñaar ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeruk avril gi la ñu génn li muy sàkku rek moo di ab recours annulation ñeel li nga xamante ni nag moom moo di ay acte yoo xam ni meeruk Sigicoor di Ousmane Sonko mu ngi ko fay posé mu daal di jàpp nag daal ne dafa respecté wul li nga xamante ni rek moom moo di charte ya tëddee bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar nag jàpp leen ni njiital Pastef bi moom la mu daal di def rek mooy daal di jël lenn ci ay gox yoo xamante ni nag ay quartier la ak rue yoo xamante ni nag ñu nga ko tuddee woon ki di capit ki di capitaine Javelier duppee l'avenue du tirailleur africain ginnaaw mbedd ma nga xamante ni nag ñu ngi ko tuddee lieutenant Lemon mu daal di koy tuddee nag jamono jooju axe 44 rue ba nga xamante ni tuddee nañ ko tamit fa nga xamante ni moo di lieutenant Trench mu daal di koy tuddee Seliki 1886 beneen mbedd ma nga xamante ni nag ñu nga ko doon woowee rue de mu daal di koy tuddee nag rue de l'Union africaine ba nga xamante ni moom lañ tuddee général de Gaulle mu daal di koy tuddee rue de la paix ginnaaw soppite yooyu nga xamante ni njiitu boobu bokk moomeel bu Sigicoor daal dina koy def di Ousmane Sonko jàppale ni nag kii di préfet ba di El Hadji Madické Darame moom nag daal dina koy attaqué daal di jàpp nag daal di li tëral kii li nga xamante moom moo ñeel wàllum collectivité waaye tamit moom moo ñeel seen wàllum liggéey mu daal di jàpp ne Ousmane Sonko nag dafa daal di ñëw rek daal di profité mbir yu ni mel ca waxtu boobee nag mu daal di koy clamé ca kanam ak juge suprême ngir rek ñu daal defee mu daal di deltu ginnaaw ci décision yi nga xamante ne nag jot na kaa jël leneen lu ci dooleeku nag njiitu bokk moomeel boobee di Ousmane Sonko ci préfet bi nee na dafa daal di créer ab service civique communal boo xamante ne nag na mu ko créer tegu ci yoon maanaam lépp loo xamante ne nag dafa jëm ci wàllum organigramme ba nga xamante ni noonee la a yoree boobu njiitu bokk moomeel ya kii di Ousmane Sonko respecté wu ko loolee sax nag moo tax mu daal di sàkku nag ci li nga xamante moom moo di article 084